salaamaaleykum soxna si. maaleykum salaam wa rahmatulah. Ndeye eh, laa tudd dëkk septième extension. léegi ah, de yow commune Patte d'Oie. Eh, xanaa monsieur le maire Banda woote cleaning day bi président ab kii président Macky woote woon. si la ñu ñëwoon tey pour chaque première samedi ñu ñëw set setal suñu commune si la ñu ñëwoon tey. ñëw dañ te oh. ah, xanaa am benn satisfaction bu baax parce que loolu yëpp monsieur le maire moo ko waral ndax moom moo nu woo ni nañu ñëw comme ni joxe de lancé na yëf yi ba noppi ñun tamit bu nu bàyyi suñu commune noonu ñu mobiliser élèves yi ak ñëpp ñëpp ñëw taxaw ñu def seen pour koy gox bu mën a set rek. mais mag yi waaw waaw parce que mag ñi ñoo war a jiite won xale yi ñu def looloo tax ñu jiitu ñun mag ñi ñu jiitu pour won xale yi ñun ñoom ñu defar. waaw waaw ñooyu jeunes yooyu waa ASC yooyu seen président ASC yi ñoom ñëpp ñëw ñëw xam nga yenn saa yi pour nga yëkkati nit samedi matin yenn saa yi day jafe. xam naa lool si la bokk mais xëy na premier lancement bi la ni première kii bi xam naa bii di ñëw incha allah dina gën a baax. dana euh, euh, a segal d'abord euh, suñu xol yi. waaw xol yi moo war a njëkk a set xel yi xol yi ñoo war a njëkk a set balaa dara di set parce que loolu mooy importance bi bu xel xol yi setee ñëpp mën a ànd mais bu xol yi setulee xam nga nit ñi duñ mën a ànd ñii ñaan yàlla rek di lancer waa commune bi lii suñu yëfu bopp la. kenn ku si nekk boo déggee information boo déggul information te nga war a ñëw rek nga ñëw ndax sa gox la <laughs> waa kañ merci beaucoup. <laughs>